bismillahi rahmaani rahim sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina mawlana muhammad sayyidil awwalina wal axirin rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yawmi ddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli اجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا بقي السلام عليكم solo boo xamante ni si eh, benn tribune la ci tribune yoon mooy yi nga xamante ni si ah, ba tax na boo leen seetloo def démb nekk jataay yoo xam ni jataay yu am solo la yoo xam ni murid yu bari dañ koy teewlu ci biir réew mi ak bitim réew ko jaarale ci jumtukaay ni mën a nekk ci àdduna bi ak foo mën a nekk lu mu sori sori sarxan wa xarban di mën a topp jataay yi kon mu nekk jataay yu am solo tey nag ñu ñëw ngir indiwaatal leen benn tomb ci tomb bi xam-xam yi ndax xam ngeen ni euh, màggal gi bu ñëwee dañuy daara ji day tànn ay thèmes yu bari waaye da ngay gis ni thèmes yu ci ëpp dañ koy jooyal ci ni nga xamante ni si benn nu ñuy xamee sëñ bi ak nu ñuy tasaareem njàngaleem ak lépp loo xam ni dafay am relation ak dunduk sëñ bi ak nu ñuy mën a fexe ba jariñoo ci moom loolu moo ñu yóbbu tey ci suñu thème bi nga xam ni moom lañuy ñu waaj a traité tey muy kayfa nataamalu maa turas al muridi mooy naka lañu ñu war a jëflantee ak li ñuy tuddee ndonol euh, murid yi maanaam mooy ndonol sëñ bi wala ndonol yoonu murid loolu mu nekk tomb bu am solo ndax thème boo xam ni jamono laaj na nag lii nga xamante ni si sëñ bi bàyyi na ko fii muy liggéey bu màgg di liggéey bu tedd di liggéey bu rëy rëy jot na nag ñu xam naka la ci mut ñi mën a jariñoo te bañ koo jàppee rek liggéey boo xam ni li seex Muhammadul Muntaxa di wax sëñ bi daal fi ñu toll moom mbëgg rek lañ def waaye xamagun ko ba léegi waaye niñ mën a jariñoo ci liggéey boobu ak liggéey boobu xam giñ ko war a xam ba tax ñu mën cee jariñu loolu yaakaar naa dana nekk lu am solo dana nekk tomb boo xam ne tamit bu dëppoo jamono la kon ñu war cee ànd ak tey suñu gan yu màgg ah, gan ñoo xam ni tamit yaakaar naa jataay bi miin na leen Eh, ki ci njëkk sama feggoo sama wet ndejoor mooy al oustaz ma jamañang di baaxis di gëstukat di jàngkat ci yoon wi di taxawee ay jataay yu mel nii yu bari keneen ki sama càmmoñ mooy sëñ may jeng moom it di baaxis bu mag dëkk fële ca Thiès ñëpp xam ko ci liggéeyal sëñ bi ak ay waxtaan yu mel nii ci yoon wi eh, ñu invité woon fi tamit beneen daayira boo xam ni li tax ñu darajaale leen bis bii ñoom it ay gëstukat lañ mooy daairatu sullamal usul ñi nga xam ni dafa nekk Guédé te yaakaar naa ku ni xam-xam yaakaar naa tudd bu sa suñ suñu bu Bousso ñoom it ñu nekk ñoo xam ne ñu ràññ ko lañ ci dëkk bi seen turbine bokk tamit ci turbine yoonu murid yi nga xamante ni si ñëpp ñu ngi koy jariñoo te di ko di ko bàyyi xel moo tax ñoom it ñu ànd ak ñoom jataay bi kon fan incha allah waxtaan wi nii lañ ko bëgg a tëralee xam naa damay njëkk jox kàddu ki sama ndejoor euh, oustaz Madiama Niang su ko defee moom dana ñëw euh, ci ñetti tomb rek yoo xam ni xam naa cib tënk ndax waxtu yi ni ko bëggee woon dëgg xam naa du demee noonu mooy ma foomu trois bu ci mënee ñëw tuuti mu ñëw ci su ko defee dana ñëwaat tamit ahamiyatul muhafaza la turas ad diini mooy importance bi am ci sàmm sa ndono wala sàmm ndonol diine importance bi ci am ak sëñ Tuubaa liggéey yi nga xam ne def na ko ci loolu ba mën a sàmm moom lim mu fi fekkoon ñun ñim ko bàyyee tamit ñu mën koo sàmm su ko defee incha allah dinaa ñëw ci sama càmmooñ euh, jox al oustaz moom it mu ñëw waxtaan ñu ci bismillah ñu tuddee ma foomu turaasul murid yi mooy concept mooy bu ñu waxee turaasul murid yi ñun lan lañ ci jublu mooy jubluwaay bi dëgg-dëgg lan la bismillah ak bisimilah jubluwaay boobu wala turaas boobu eh, xaaj yi mu am mooy niñ ko mën a xaaja bisimilah xam nga buy wax il faut mu xaaj bisimilah ay waxam wutal ko ay doom bisimilah eh, ñàkk gi nga xam ne mënuñu koo ñàkk bañ a sàmm turaas boobu bisimilah bisimilah wala turaasul bisimilah eh, bisimilah ak responsabilité bi nga xam ni mu di ku nekk am na ko ci ci sàmm loolu incha allahu taala noonu la ñu fas yéenee tëralee waxtaan yi kon pour ma bañ a guddal damay jox sëñ ma jama kàddu gi euh, sëñ ma jama ginnaaw boo nuyoo ba pare xam naa nga ñëwal ñu ci tomb bu njëkk bi rek mooy mafhumu turaas mooy turaas daal naka lañ koy déggee euh, ci ci ci ci xam-xam ak ci yoon bi bismillah tafaddal maskura aoudu billahi min asheytaani irrajim bismillahi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 weer wu tedd wu mag wi nga xam ne ci la nekk di weeru safar di weer wi nga xam ne sëriñ bu mag bi waxal na boppam ne tonowu wala bénéfice bi nga xam ne moom lay ame ci liggéeyal gi muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu fees la te weer wu nekk rek tonowu googu wala bénéfice boobu dafay daal di yokk rawatina nag ci weeru safar xayril wara bada wa fi kulli shahrin zaydu safar kon mu nekk weer wi nga xam ne bis bi ci nekk di bisab fukki fan ak juróom-ñett dañ ciy sant le sëriñ bi boroomam te moo waxal boppam ne ay maqaama ay may ci bis boobu la ko amee kon dafa lott ci sant nañ ko ko santale moo tax mu naan nawetu shukraka fi dal yawmi ya samadi léeg-léeg mu ne xasattu shukurallahi shukran mutayyaban léeg-léeg mu ne xaawaltu shukrahu wala daa bi kon ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax jataay bi nga xam ne woo nañ ñu ci ñu war a ko seq ak suñu mbokk di sëñ May Jeng ci njiital sëriñ Jibril boo ko defee xam naa ne ngir njëkkante ak waxtu wi damay leeral ne rek daa nekk tomb bi ñuy waxtaanee mooy ban taxawaay lañ war a mën a am ci ndonal yoonu murit la ca ëpp solo daa nekk sëñ May moo koy indi muy dëggi-dëggi tomb bi daa nekk man li may wax mën na ma wax ne ab laytaay la rek ci li nga xam ne moom mooy li sëñ May war a waxtaanee. bu ko defee euh, li may njëkk a ñëw rek mooy tomb bu mel ni tànn ko li tax mu am solo la ci jiitu rek mooy nañu bàyyi xel ne doomu aadama ni ko yàlla bindee dafay am lu koy tënk ci wàllu pas-pas am lu koy tënk ci wàllu aada ak cosaan mooy daa am luñ koy xàmmee ci pas-pasam ci diine am luñ koy xàmmee ci aada ak cosaan ñu naan ko identité culturelle ak identité religieuse loolu nag doomu aadama bi bu ko bëggee sàmm wattu ko fu mu jaar dafay delluwaat ci sàmm nona ndax nit ki bu sàmmul nonaam rek bu boobaa dafay ñàkk liñ koy xàmmee ci wàllu aada ak cosaan waaye dafay ñàkk liñ koy xàmmee ci li nga xam ne moom mooy wàllu diine kon loolu ngir mu bañ koo ñàkk day delluwaat ci sàmm nona beneen bi ci tege mooy bu fekkee dañoo bëgg a sàmm suñu démb muy suñu taarix fu ñu jaar dañuy sàmm nona maanaam nit ki bu sàmmul nonaam rek mën nañoo wax ne démbam daf koy réer te bu sa démb réeree nag dëgg-dëgg ngir nga mën a jëm ci kanam mën naa nekk loo xamante ni si lu jafe lay doon beneen bi ci tegee it mooy xam ngeen ne dañoo nekk ci jamono joo xam ne dañ koy tuddee awla ma mooy li ñu tuddee mondialisation mooy àdduna bi ni mu xëttatloo ci wàllu koom-koom xëttatloo ko ci wàllu dundinu askan yi waaye xëttatloo ko ci wàllu aada ak cosaan Euh, loolu nag mën nañoo wax ne réew yi nga xam ne ñoo gën a am doole dañoo am seen ay gisiin yoo xamante ne si yu doy doy waar la yoo xam ne dañ koy imposer xeet yi nga xam ne wala réew yi nga xam ne dañu néew doole loolu nag ngir ñu mën cee mucc fu ñu jaar dañuy delluwaat ci suñ ndona sàmm ko bi ci mujj mooy bu ñu ne sàmm noonal yoonu murit yoonu murit ndonaam xaaj la ci ndonal lislaam kon mënees naa wax ne sàmm nonal yoonu murit daanaka mooy sàmm nonal lislaam ndax nonal yoonu murit bu ñu ko waxee wuute wut ak li nga xam ne moom mooy nonal lislaam dëgg-dëgg ndax boo ko dàqaatee foofu rek la jëm boo ko defee kon incha allahu ngir waxtaan ci tomb bi comme ni ko sëñ Jibril waxe li ci jiitu mooy xamle lan mooy ndona ndona buñ ko waxee baat bi mënees naa wax ne ci arab moom la ñuy tudde aturaas tubaab yi naan ko patrimoine wala li naan héritage Euh, baat la boo xam ne nag mu ngi bàyyi ko ci baatu irs irs buñ ko waxee mooy ndona ba tey te ay baat la yoo xam ne bu ñu delloo ci alquran danañ fekk mu di ko jëfandikoo lu baree bari suñ borom mi ngi wax ne wa taakuluuna turaasa ak la lamma mooy da ngeen lekk ndona mooy loo xam ne dañ ko fee bàyyil ab jirim lekk goo xam ne lekk gu taratar la léeg-léeg it mu jëfandikoo baatu miiraas walillahi miiraasu samawati wal ard léeg-léeg mu jëfandikoo baatu warisa wa warisa suleymaan daawud léeg-léeg mu jëfandikoo baatu aw rasa muy donal summa awrasna alkitaaba alladina astafayna min ibadina wala wa awrasna alqawma alladina kaanu yustadaafuuna mashaariqa al ardi wa magharibaha loolu kon da gis ne baat la boo xamante ni si alquran indi na ko ay indin yoo xam ne yu wuutee wute la waaye loolu lépp rek dafay delluwaat ci loo xam ne dañ ko fee bàyyi mooy li ñuy tuddee ndona buñ ko bëggee xam xamle nag ci anam gi nga xam ne ci lañ koy jëfandikoo nga xam ne moo ñu tax a jóg dëgg-dëgg dañu naan ndona buñ ko waxee mooy ay aada ay cosaan ay xam-xam loo xam ne dañ koo bind wala loo xam ne dafa aju ci wàllu aar ba ci loo xam ne dafa aju ci wàllu pas-pas loo xam ne ay maas dañ ko fee bàyyil yeneen maas nga xam ne maas yi jàlloon dañ ko fee bàyyil maas yi nga xamante ni si ñoom ñoo fi nekk maas yi jàlloon dañ ko fee bàyyil maas yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk kon ndono buñ ko waxee rek mënees naa wax ne mooy loo xamante ni si ñi la jiitu woon dañ la ko fee bàyyil bu boobaa nag ndono loolu mën naa doon loo xam ne dafay aju ci wàllu euh, aturaas al adabi mooy loo xamante dafa aju ci wàllu xam-xam euh, mën naa aju it ci aturaas al saqaafi mooy li ñu naan patrimoine culturel mooy loo xam ne dafa aju ci wàllu aada ak cosaan mën naa doon loo xam ne mooy aturas alxadaari mooy li ñuy tuddee patrimoine civilisationnel mooy loo xam ne daa aju ci wàllu dundiinu askan yi waaye mën naa doon it aturas boo xam ne turas diini yi lay doon mooy loo xam ne dafay delluwaat ci wàllu pas-pas dafay delluwaat ci wàllu diine yooyu yëpp nag bu ñu ko jëlee mën na caa am loo xam ne lu ñu mën a teg loxo la nga xam ne mënees na koo laal ñu naan ko maddi mooy loo xam ne lu concret la mën naa doon loo xamante ni si lu ñu munta laal la ñu naan ko maanawi mooy loo xam ne lu abstrait la kon sëñ Jibril bu ma doon xamle noona mën na maa wax ne rek mooy loo xamante ne si luñ la fi bàyyil la loola nag mën naa aju ci wàllu xam-xam mën naa aju ci wàllu aada ak cosaan mën naa aju ci wàllu pas-pas kon sëñ Jibril ma delloo la kàddu yi incha euh, allah bu ñëwaat euh, jërëjëf oustaz ñu ngi lay sant bu baax a baax ci tënk gu am solo googu kon xam naa leeral na trois euh, bi na am mooy mooy lan ak lan lañ ci jublu xam naa damay ñëw ci sama càmmooñ jox oustaz May léegi oustaz ginnaaw yow boo nuyoo ba pare dañ lay laaj maanaam maanaam bu fekkee da ngay contextualiser loolu ak trois almurid yi bu ñu ko waxee lan lañ ci jublu mooy damaa bëgg nga ñëwal ma ci taraf boobu am loo ma ci leeral incha allah jërëjëf aoudu billahi min ashaytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di jiital ci nuyo bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu taala wa raham di ci teg ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci barab bu tedd bi barab bu màgg bi bokk ci barabu cheikhul xadim yi ñu ci jiital sëriñ Moustapha Diatara mi nga xamante moom moo nekk ci bopp liggéey bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mbooleem njabootu boppam gi mu fi àndal ak mbooleem koo xamante ni rek yaa ngi ci participé ci biir liggéey bi di ziar sëriñ Jibril ak sëriñ Majama waaye di dellu di ziar ñi nekk suñu ginnaaw di suñuy sëriñ muy waa kër Serigne Mbacke Bousso di leen jox seen wàccuwaay euh, di sant bu baax ci jataay bi nga xamante ni ñoo ngi koy ànd ak waa Maktabatu Cheikh Khadim euh, dañ ñoo bëgg a dimbali rek bëgguñoo ñoo delloowaat ci téere yi ngir ñu nafaraat waaye nafaraat li nga xamante ni mënuñoo am lu dul moom mooy at aturasul muridi ni ko Serigne Jibril laaja laaj boobu nag laaj bu yomba tontu la ci déggin ndax ni ko sëriñ ma jam waxe rek ci biir bi muy def ab leeralam turasul murid yi kenn mënu ko génne ci turasul islaam yi ndax sëñ Tuubaa moo njëkk a waxal boppam ni wabiye di sabil dama yeesal yoon wi ma fi fekk te yoon woowu mooy yoon wi nga xamante yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yoroon di ko doxal sëriñ bi bi mu ñëwee moo tax li mu indi tuddewu ko loo xamante ni daf koy askanale ci boppam wala ci ay maamam waaye mu jël indi ko dal di koy tuddee ak tariqa al muridiya mooy képp koo xamante ni bëgg nga àgg ci yàlla te nit ki mënta àgg ci yàlla te jaarewu ko ci lislaam kon ñu xam ni turasul murid yi bu ñu ko dee waxee mooy yi nga xamante ni ay cëstay la ci lislaam waaye nag sëriñ bi ku ne xam na ni moom bi mu ñëwee lim fi fekkoon daf koo yeesal ci biir yeesal googu nag mu daal di koy contextualiser ak mbir moo xamante ni dana dëppoo ak lislaam waaye dana dëppoo ak ñi mu nekkal dana dëkkoo ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkal ab gox loolu moo tax kenn mënta waxtaane Turasul Muridi te doo dellu ci li nga xamante ni moom mooy mabaadi u tariqa al muridiya ndax nit ki pour nga xam sa cosaan ak li ngay ndon li ngay donn faw nga xam yow ci lan ak lan moom mooy sa cosaan dëgg dëgg dëgg dëgg murid gi nag dafa am ay mabaadi am mabaadi yooyu nag sëriñ Jibril xëy na liñ ci waajoon bari na waaye benn bu ci nekk dinañ ci tënk tuuti ndax sëriñ bi moom bi mu ñëwee dafa am yu mu fa fekkoon yu baree bari mu xool lenn lu ca nekk li ca mënta ñàkk mu jël loola di ko jëfandikoo li nga xamante ni lislaam du ñu wax ni amul woon waaye ñoom ci naneen waneen tuur lañ ko daan woowee yeneen appellation lañ ko daan jox moom mu indi ko dëppale ko ak sunu aada dëppale ko ak sunu culture bi ci njëkk bu ñu jëlee ci mabaadi yooyu lu mel ni xam-xam xam-xam dafa bokk ci mabaadi u tariqa al muridiya baneen bi mooy al ibada mooy jaamu yàlla ñetteel bi mooy al ndax sëriñ bi moom dafay faral di tànn sax baat yi muy jëfandikoo ñeenteel bi mooy al xidma juróomeel bi mooy al mooy jaayante yi nga xamante ni ay mabaadi la bokk na ci yi nga xamante ni moom mooy mabaadi u tariqa al muridiya nit ki xam ko ba pare door a xool nag moom naka lay téye ndono li ngir mën a donn li nga xamante ni moom la fi moo Mawlana Cheikhul Khadim bàyyi woon ndax sëñ Tuubaa ci juróom yi ñuy wax benn bu ci nekk ci yi may wax moom moo ci joxe ay bind soññee ci bindal ci boppam ay xasida mag ñi mu yaraloon boppam mu soññ leen ci ndax boo jëlee lu mel ni xam-xam ñépp niñ ko waxee am na ay téere yoo xamante ni xam-xam kese moo ko tax a jóg loolu dinañ ci ñëw buñ ko dee jàngat bokkoon na ci li mu daan soññi ku aju ci moom alayka yaa muriidu bittaallumi fa innahu mutaharun min zulami maa ngi lay dénk yow murid bi nga dem sàkku ji xam ndax xam boobu ngay sàkku moom moo lay leeral ci lépp loo xamante ni ay lëndëm lëndëm la ab yaa diñ ci mën a wax bari na lool kon xam dafa bokk ci wàccuwaay yi nga xamante ni bu ñu mënoon a wax yoonu murid mooy bi nga xamante ni moom moo ci jiitu ñaareelu tom bi mooy lu mel ni liggéey te ku ne xam na ni yoonu murid su egsi fii mu egsi bokk na ginnaaw sëriñ bi cëslaa yi mu ko cësal ci wàllu xam-xam liggéey moom moo tax ñu egsi fi ñu egsi moo tax sëriñ bi moom da ko wutaloon ay tur yu bari daan na ko wooye talabul xalaal daan na ko wooye kasbul xalaal daan na ko wooye iltimaasul xalaal loolu nag li muy toftale mooy dañuy wax ni mbir moo xamante ni dañ koy wooye ay tur yu bari rek loolu lu ñor boroom la moo tax sëñ Tuubaa wax ni sàkku lu lew faratale ci bépp jullit moo tax mu daan wax ni wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xeyri wahami moom nag sëñ Tuubaa damay faral di wax ni ci man jàngat yi may def ci ay bindam su waxee ni faratale ci bépp jullit kon yow moom jëlul en compte taalibe bi kese moom dafa jël en ni la ma waxoon ci ba muy tàmbali mooy damay yeesal lislaam mooy sëñ Tuubaa julli ñëpp lay waxal ci biir julli ñi nag mu am ci njabootu boppam mooy ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee almuridiya ñetteelu tomb bi te sëñ ji bi mu bokk ci mabaadi yi mooy bi nga xamante ni nag mooy alxidma nga xamante ni man mii di wax sëñ ma jama ak yow mi ak mboolem ñun ñëpp li ñuy def day dugg ci buntu boobu ndax sëñ Tuubaa ni muy soññee ci lépp damay wax ni su fekkoon ni am na yoo xamante ni concept bu bees indiw ko moom àddu ci woon xel dana taxaw ni lii nañ ci waxtaan mooy nit koo xamante ni dundam gépp daf ko sànk ci liggéeyal jullit ñi dundam gépp daf koo sànk ci liggéeyal sëñ Tuubaa loolu heureusement bi ci sëñ bi joxe ay bind boo demee ci benn bayit di nga ca fekk Sëñ Tuubaa naan na ngay ziyaare gaa ñu baax ni waaye na leen di liggéeyal ngir jëm yàlla wa zur xiyaar al ulama wa saalihin waxdimhum lillahi jalla kulla xiin ndax liggéey boobu bokkut ak al amal bokkut ak kasbul xalaal sëñ Jibril bu dee ñëw ci maktabatu Cheikhul Xadim bis yàlla sàkk di jàpp ci liggéey bi liggéey boobu mu koy def daf koy def li wàccillaahi ngir jëm yàlla waaye yaakaar ci dabu ci ngërëmu sëñ Tuubaa loolu nag moom mooy alxidma te loolu concept la boo xamante ni baaxoowuñu ko gis ci yeneen xeet yi baaxowuñu ko gis ci yeneen adiyaan yi dinañ ci ñëw ci ci kanam biñ ko defee lan la jural yoonu murit juróomeel bi muy almubayaa muy jaayante loolu nag yàgg naa am ci lislaam ndax ku nekk ni mu xamee lislaam jullit yàgg nañoo jaay ak yoon tàmbalee ko ci saxaaba yi ba ci yoon bi sallallahu ak ñi ko ñi nga xamante ni ñoo ko jàppale ba lislaam taxaw sëriñ bi nag xam ni loolu mënta ñàkk ci diine moom moo tax mu wax ni jaayante nag buñ koy def dañ koy def akub sëriñ jaayante kenn mënta nekk ci yoonu murit amoo ko jaayanteel ñu mën a wax ni yow ci yoon wi nga bokk te moo tax sëñ Tuubaa doon wax ni wa laazimu suyuuqa fi l bu'di wa fi l qurbi bimtisaali ma minhum yafi te loolu ki ñuy jaayanteel dangay ngay jaayanteel moom ci dégg ndigal bàyyi ay tere moo xam nga jige ko ak nga sori ko kon ajuwul ni sëriñ bi nga war a jébbulu danga ko war a jege beneen bi ci topp muy juróomeel bi muy al adab mooy ay teggin muy bokk ci mabaadi ut tariqa al muridiya te sëñ Tuubaa waxoon ni lu nit am lu mu bari bari moo xam ci alal la lu mu manti doon li koy gunge mooy ay teggin wa xayru masdaari bihi lfata talaazumul adabi xaysu ata kon sëriñ bi moom moo ko waxaloon boppam li gën ci li nit ki di taqoo mooy ànd ak teggin kon bu ñu jëlee juróom yooyu ma lim mu tàmbalee ko ci xam-xam ak kasbul xalaal ak amal muy muy muy muy ibada ak xidma liggéey te li yàlla rekk tax ak mu bàyyaa jaayante léegi nag ci la ñuy wàcc xam ni lii nii mooy mabadi u tariqa al ci la ñuy door a xam ni nag ñun buñ dee donn buñ dee sàmm ndono lii lii lañ war a sàmm ndax lu bokkul ci lii boo ko sàmmee yaa ngi sàmm loo xamante ni sëriñ bi moom boolewuloo ko ci mabadi yi loolu kon sëñ Jibril loolu moo taxoon ñu def rétroactive ngir ñëw ci mabadi u tariqa al muridiya dinañu dimbali ngir ñu mën a xam naka la ñuy sàmmee ndono li nga xamante ni moom la ñu sëriñ bi bàyyil kon loolu mooy li nga xamante ni loolu lañu war a donn war koo téye war a xool nag naka lañ mën a def ba man koo def ko tatwir ko ba nga xamante ni lenn lu ci nekk suñ ñëwee ci biir waxtaan wi dana gën a leer ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci leeral gi nga leeral li ñuy tuddee mafhum atras al murid yi euh, mu wax ko ci anam gu am solo wax ni turasul murid yàlla bu ñu ko waxee mooy turas al islam yi rek mooy li fi lislaam bàyyi woon ndax sëñ Tuubaa bi mu ñëwee euh, waxut wala wootewut lu yees indiwut lu bees dafa wax ni li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon loolu laay yeesal waaye mu tënk ko ci ay mabaadi yu am solo mooy xam-xam yaakaar naa li ci sëñ bi wax ba bari na lool ba boo demee ci ñiy jàngat mbindam sax dañuy xaaj mbindum sëñ Tuubaa li ñuy tuddee asciaru at-taalimi ak li ñuy tuddee maanaam xasaayit yi nga xam ne moo lañu tuddee ay xasaayit xasaa wala xasaayit ruuxiya yi nga xam ni dafay tarbiya nit nga xam ne sëñ Tuubaa am na jaanib boo xam ne boo la neexee ci mbindam ci xam-xam rek ngay wax lenn doo ko ci génn ba ci xasida yi nga xamante ni si sax dafa am lu ñuy di ruuxaaniya boo xoolee ci biir xasida yooyu dangay ngay gis ci mu ilm yi da caa fees dell mu waxaat ba tey ni al ibada muy jaamu yàlla muy loo xam ne tamit cëslaay lu am solo la ci yoonu murit mooy lépp lu waay di def rek ndax Sëñ da daan wax ni ma nit àjjana ju àndut jaamu yàlla amuma ko te ko am na am fu mu ko mu waxaat ba tey li ñuy tuddee xidma mu nekk lu am solo tamit mu nekk benn révolution bu am solo boo xam ne Sëñ Tuubaa moo ko indi ndax xam nga Sëñ dafay am lu ñuy tuddee contextualiser baat yi mooy baat yi dafay am ay mafu mafaahim yu bees yu koy jox ndax boo xoolee ci euh, ku ñu wax yi bu yaakaar naa kebe lañ koy wax am na téere bu mu tuddee tuddee ko mel ni xekkam Cheikh Xadim boo xoolee ma ngi koy tanaawul xidma lu bëree bëri di wax ni xidma mooy bépp du boo xam ne du basari yi lañ koy def rek boo xam ne xaalis li rabbihi yuridu bihi wajhallaahi li adaa'i manfaatin mu nekk Sëñ Tuubaa kon loolu la jàpp xidma mooy lépp loo xam ne da koy def rek te mën a nit mbooloo mu waxaat ba tey mu bàyyi mooy am kilifa sëñ Tuubaa tamit yoonam wii da koo tënk ci maanaam am kilifa ak li ñuy tudde al adab teggin kon sëñ bi ni nga ko tënkee am na solo lool wax dëgg yàlla ñu la ciy sant bu baax di la ci gërëm xam naa damay ñëw ci yow rek nga continuer ci eh, pour njëkkanteek waxtu wi eh, aqsaam yi mooy ak aqsaamu trois nga ñëwaat ci mat ba soog a ci sëñ ma jama ndax mu gën a mu chronologie bi gën a gën a am solo. jërëjëf baax Euh, da nga sof rek fi ñu bàyyee ngir gën a dëgëral li ñuy wax ku ne xam ne nag turaasul murid yi turaas boo mën di gis sax ba ci turaas al islaam yi dafay am ay aqsam comme nag ci murid gi la ñuy wax faw mënta ñàkk ñu def ko ay ay xaaj xaaj bu njëkk bi mooy jaanib ilmi bi mooy jaanib bu ama am solo jaanib boo xamante nii damay wax ni ku ci nekkal Cheikhul Khadim yaa ngi ci li nga xamante ni li sëriñ bi gënoon a bëggal boppam ndax Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee ci contexte social bi mu fekk am na lu mu fekkoon mu bàyyi ko fi jël beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen beneen te moom méthode bi mu jëloon mooy dafa wax ni man damay jihaad ci xam-xam inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa kon turasul murid yi xam-xam mooy li ci ëpp doole xam-xam bi nag sëriñ bi moom moo ko njëkka defal ay boppam ay xaaj ni ko waxee suñ jëroon ci muallafaat ilmiya yi di ci wax mën nañ fi nekk ba at mi ñëwaat di ko jàngat te tax mu jeex ndax sëriñ bi jaani bu ci nekk lu mel ni way na ci wàllu fiq wax na ci wàllu fiq wax na ci tasawuf wax na ci aqida te benn bu ci nekk su ci waxee day wax ni maa ngi leen di digal yéen taalibe yi ngeen topp loolu beneen bi ci des ci biir ay mbindam mu amaat beneen jaani boo xamante ni mooy xasida yi mooy xasaid rabbaniya bu njëkk bi nag sëñ Jibril suñu xoolee jaanib almi yi ndax xasida yi dañuy wax jaanib rabbaani bi waaye dafa amaat moom jaanib almi bu ci nekk kon ñaar yooyu ñoom ñoo bokk benn mixwar waaye dañoo séddalikoo ndax benn bi mën nañ koo jël di ci jàng di ci génn ay xam-xam yu yees waaye di ci xam naka lañuy ñuy defare suñu àdduna waaye naka la ñuy amee ëllëg saadatu daareen beneen bi ci toog lu jëm ci wàllu xasida yi mu nekk loo xamante nii sëriñ bi yëfi boppam la ndax xam nañ ni bu njëkkoon arab yi moom ràññiku woon nañ ci wàllu woy waaye sëñ Tuubaa moom daf ci indi méthodologie boo xamante ni indi ci concept boo xamante ni mësuñu koo gis dañuy wax ni sax li mu woy ci benn baxar baxar bi mu def mawaahibu ak annusratul anchiq fi madi gayri xalaaiq te man maa ngi ko njëkk gisee ci sëñ Abdourahman Mbàkke yàlla na ko yàlla yërëm ci barkeb Cheikhul Xadim ak madal xabiiru lisaanu sukri buxur boobu ñaari ñoo ci masa way kenn ki am naar la naaru Mauritanie la keneen ki ci des boo demee bëgg a xam lam ca way juróom-ñaari bayit la te sëñ Tuubaa moom mawaahibu rek mu ci way daanaka li ko manqué juróom fukki bay bariwul loolu li muy tegtale mooy sëñ Tuubaa dafa jekk woon xam-xam ci biir xasida yi mu amaat geneen wàll mooy xasida madx yi kon loolu lépp ci xaaj yi nga xamante ni ci turaasul muriid yi la bokk baneen bi ci topp muy al amakin al muqaddasa muy barab yi nga xamante ni moom ay barabi sëriñ bi la te benn gënu cee ràññiku dëkk bi ñu nekk di Touba ñaareelu barab bi nga xamante ni mën nañ koo lim lu mel ni jumaay Maolana Cheikhul Xadim ji xamante ni sëriñ bi moo ko sosal boppam daan fi def ay jaamu yàllaam mu nekk loo xamante ni. ramz la ci dëkk bi waaye ramz la ci àdduna bi yépp ñetteel bi barab bii ñu toog di wax muy maktabatu Cheikh al danañ ci ñëw lu gën yaatu buñ egsee ci naka lañu war a sàmmee ndono li ndax barab boo xamante ni soo fa ñëwee la fa ëpp mbindum Cheikhul Xadim moo fa mooy la fa ëpp donte am na yeneeni i am na yeneen i fànn yu fa nekk waaye la fa ëpp ci mbindum sëriñ bi la jëm loolu tamit ci barab yi la bokk beneen bi ci topp mooy lu mel ni aynu rahmati ak yenn barab yi nga xamante nii ci dëkk bi lañ nekk lu mel ni daaru quddus nga xamante ni jumaa jooju fa la sëriñ bi njëkk a gisa yonent bi sallallahu alayhi wa ak fi mu dendal muy bayti nga xamante ni yenn bagage yi nga xamante ni sëriñ bi bi mu jugee ci tukki bi falañ ko denc yooyu ay barab la yoo xamante ni ñun mënuñu koo ñàkk bañ a boole ci turaasul muriid yi waaye naka noonu tamit lu ëpp solo mooy suñuy wax xaaji turaas mooy ñun suñu kàddu ndax ku ne xam ne ni suñ jibril ñun dañoo am lu ñuy waxe sama sëriñ cheikh bi sang bi nga xamante ni bu la nit waxee dara nga bañ koo gàntu sax faaw nga am baat boo wax danga koy wax ba pare ni ko maa ngi jéggulu nga xamante ni dañoo am sunu langage bopp beneen bi ci topp tamit mooy ci biir identité culturelle bi ñu am suñu colu bopp ndax bokk na ci li nga xamante ni islaam indi na ko mu doon loo xamante ni ñu bari dañ koy roy ñoom mooy ak naare sëñ Tuubaa bi ñëwee loolu la njëkk dindi ci murid yi mooy naar naarlu donte lu baax la ndax sëñ bi moom dafa bañoon ak tanassur mooy tubaab tubaab lu sëñ bi moom daf koo bañoon daan ko bind daan ko tere mag ñi bi mu ñëwee loolu moom moo tax mu kere loo xamante ni ku gis sëñ Madiama rek day xam ni kii am murid la identité culturelle boobu nekk ci moom loolu tamit ci xaaj yi nga xamante ni mënuñu koo ñàkk a bañ a tudd beneen bi ci des nag mooy ay jumtukaay ndax ci biir Sénégal am na fi yenn xeetu bagage yoo xamante ni soo ko gisee rek di nga xam ni lii bagage yi murid la ndax lu dëgg yàlla man sama tànk soreegul waaye bari naa dëkk yu ma dem waaye am na ay xeetu jumtukaay yoo xamante ni murid gi rekk ko am lu mel ni baylaat lu mel ni maxtu lu mel ni xeetu dàll yi nga xamante ni mag ñi moom lañ daan sor li nga xamante ni buñ ko bindee ci la ñuy def kaamil bi xeet yooyu yëpp bagage la yoo xamante ni ay bagage yi murit la loolu bokk ci turaasul murid yi kon sëriñ bi loolu mooy yi nga xamante ni ay xaaj la benn bu ci nekk bu ñëwee dinañ leeral xaaj boobu naka lañu war a taxawee ngir sàmm ndono loolu nga xamante ni moom la ñu sëriñ bi bàyyil yal nañu ko yàlla fayal. Euh, jërëjëf oustaz euh, leeral bi am na solo euh, dafa ñëw rekk ci lu am solo loo xam ni moom la tënkee aqsaam nee na ba ci njëkk mooy maanaam buñ dee xaaj li fi sëñ bi bàyyi moom wala ñu di ko jàngat nee na du mën a ñàkk ñu jiital xam-xam ndax xam-xam. moom sëñ Tuubaa moom daanaka léppam xam-xam la léppam euh, jàng la ak euh, alquran te ci biir xam-xam boobu dañuy gis ni euh, sëñ Tuubaa bind na ci fànn yu bari mën nañ ni sax fànn yépp dafa am fànn yoo xam ne da cay bind rek mu nekk fànn yoo xam ne mustaqil la nga xam ni téere bi moom dalay wóor ni ci lii la jëm lu mel ni ci jaanib fiq wala tafsir wala tasawuf wala aqida kooku sëñ Tuubaa am na ci ay téere yu bari bari waaye ci yeneen xam-xam yi nga xamante ni sii tamit ci langue arabe ak ci beneen da ngay gis ni Sëñ bind na ci waaye dafa nekkut jaani mustaqil waaye boo nekkee ci biir xasiida yi danga koy gisaale boo jay jàng yenn xasiida yi da ngay gis ci ilmul balaaxa ay tarwiya ay lusumu maa laa yalzam ay tibaax ay jinaas lépp danga koy fekk ci biir mbind mi xam ni boo ko drasa da ngay gis ni Sëñ lépp la lépp la lépp la indi mu jëmaat tamit ci biir euh, xam-xam boobu mu amaat yeneen geneen wànn goo xam ne ak jagleem la xam ne geneen karaamat yi xatu yat yi la wax mm-hmm. muy am li ñuy tudd ay xasaayit ndax ñun euh, xasaayit ci fom bi ñun concept bi bu ñu ko waxee rek ci yoonu murid da ngay gis ni euh, mooy lii ñi xam ne moom la ñuy jàng muy def li ñuy tuddee atarbiya ruuxiya ci nit mu tënk ko ci ay xaaj yu bëri yenn yi nekk ay am yenn yi nekk ay salawaat yenn nekk ay duwaa yenn yi nekk ay tawassul yenn yi nekk ay munaajaat mu nekk lu am solo loolu lépp nag nee na tamit ci xaaj yi tamit mën nañ cee gis tamit amaakin yi mooy Touba gi ci la bokk ci trois yoonu murid amaakin muqaddas ci biir Touba nga fekkaat fi yeneen ay particularité mooy jumaa ji aynu rahmati ila axirihi ci ci biir ci biir loolu tamit nga gis ni murid yi am na loo xam ne luñ luñ luñ lu ñu ràññekoo la loolu mën nañ ko dugal ci xaaj yi mooy ni ñi solo ba ci seen ay concept bi baat baat neen am na baat yoo xam ne yu bëree bëri dafa dafa morite da koy dégg ci biir xeetu yoonu murid mu nekk lu lu amaam solo kon ñi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci kon xam naa ma ñëw ci oustaz Badiama euh, yow segam xam nañ loolu nag da ngay ñëw rek daal di dugg ci li ñuy tuddee ahamiyatul muhafaza ala turas diini mooy lii lépp nag bu ko nit amee mooy lan ban importance la ko war a jox war a sàmm gi mu ko war a sàmm ba du sànku loolu mooy tomb bu am solo la ci waxtaan wi mooy lii nag ginnaaw bu mu nekkee ji ba pare léegi nag nan lañ ko war a sàmmee ba des ci suñu loxo bismillah euh, jërëjëf sëñ Jibril jërëjëf sëñ May euh, kàddu yi am na solo xam naa ne li sëñ May indi ci xaaj yi lu ama am solo la waaye lépp mënees naa wax ne boo ko dàqee dafay delluwaat rek ci diine ndax daanaka li mu wax lépp génnul diine léegi nag ndonal diine ci boppam sàmm ko ban solo la am loolu bu ñu delluwaatee ci alquranul karim danan fekk luy wane solo si mu am bu nu jëlee ñenn ci yonent yi rek ma tudd ci ku mel ne ki yonent yàlla Zakariya bokk na ci la mu doon ñaan boroomam mooy mu may ko njaboot goo xam ne dañ koy sàmmal ndonali te ndono loola mooy ndonal diine waaw moom bañ ak ndonaam sànku te mooy ndonal diine tax na bi mu demee ba nekk mag euh, fekk jamono joojo doom jafe ne ko lool daa ñaan boroomam ne ko may ma njaboot goo xam ne dafay sàmm noonal diine fa li min ladunka waliyan yarisu ni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yonent yàlla ibrahim mooy ñaareel gi moom it bokk na ci li nga xam ne doon na ko ñaan boroomam mooy mu defal ko njaboot goo xamante ne si dañuy sàmm nonal diine mooy la mu wax ne rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa yuzakkihim innaka anta al azizul hakim ñaan gi mu ñaan boroomam ngir mu yabal ci aw nitam yonent boo xam ne dafay jàng ci ñoom téere bi waaye di leen jàngal sunna ak di leen yar loola la muy tegtale mooy dafa bëgg ku ko sàmbal li nga xam ne moom mooy noonal diine moo tax bu ñu xoolee ci yonent yàlla ibrahim ak yonent yàlla yaqub bi nga xam ne sëtam la bi ñu demee bay génn àdduna dañoo dajale seen njaboot am lu ñu leen dénk ndénkaan loola mi ngi tënku ci ñu sàmmal leen nonal yi nga xam ne mooy noonal diine te mooy wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ddiina fala tamuutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhadaa id xadara yaquba almawt id qaala li banihi ma tacbuduuna min bacdi qaalu nacbudu ilahaka wa ilaha aabaika ibrahim wa ismail wa isxaaq ilahan waxidan wa nahnu lahu muslimun loolu lépp boo ko delloo rek mooy ñoom dañoo bëggoon ku leen sàmmal nonal diine li ba tax ñu dajale seen njaboot sàkku ci ñoom lool bu ñu delloo ci alquran it danañ xamaat sàmm nonal diine solo su mu am mooy su borom mi ngi wax ne ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba faatu ci seeni doom ak seeni sa ñëw topp leen ci yoon woowu nee na dinaa leen yéegal martaba yee seen baay ak seen maam yi nekk donte àgguñu fa donte jotewuñ fa dina amanu wa tabaathum zurriyatuhum bi iman naa bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min ba tey day delluwaat ci sàmm noonal diine moo tax sëriñ bu mag bi bokk na ci li doon ñaan boroomam mooy na ko may njaboot goo xam ne dañuy sàmm noonal diine hada wa habli min ladunka ya muin zurriyatan tayibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu kon bu ñu delloo ci yonent yàlla zakariya dellu ci yonent yàlla ibrahim dellu ci yonent yàlla yaqub dellu ci waxu sëriñ bi ak ñaanam loola daf ñuy firndeel daf ñuy jàngal sàmm li nga xam ne moom mooy noonal diine am na solo waaye mboolem nit ñu baax ñi it lu mel noonu yàgg na leen a ñor sëñ Jibril jërëjëf euh, sëñ Madiama xam naa tomb boobu dafay lëkkalook euh, tomb bi nga xam ni moo ci moom ngay ji mooy ginnaaw bu ñu xamee loolu solo sim am euh, loolu sëñ Tuubaa nag yan effort la ci def ak naka la ko jëmmale mooy naka la jëmmale moom sàmm lim fi bàyyi loolu tamit war a nekk ab jàng ci ñun bañ lii mu fi bàyyi tamit ñu sàmmal ko ko ci anam gu rafet. Euh, jërëjëf sëñ Jibril xam naa ne foofu moom tomb la boo xam ne bu yaatu yaatu la ndax daanaka loolu rek doy na aw waxtaan waaye dama ci tënk tënk boo xam ne tënk bu tënkoo tënku lay doon ngir sëñ may li nga xam ne moom la bëgg a indi dëgg-dëgg ma mën koo indi ndax loolu mooy dëgg-dëgg waxtaan wi bu fekkee sëriñ bu mag bi la taxawaay bi mu am ci sàmm nonal diine. Euh, la ca jiitu rek mooy woote gi mu ci woote ndax noona lu mu mën di doon boo ko bëggee sàmm dafa aajowoo nga di ci tawxiya nit ñi bu ñu ko waxee mooy conscientiser leen sensibiliser leen mooy xamal leen yee leen ci lu mel noonu moo tax sëriñ bu mag bi boo seetloo mi ngi doon wax ne yaqulu ahmadu ila saada yad'u almala bil ilmi wal ibada mooy dafay woote ci ak texe texe googu mooy lan mooy lislaam waaye jaare ko ci xam-xam jaaree ko ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla te mooy li sëñ may doon wax euh, beneen bi ci tegee it mooy bu ñu seetloo doon na woote ci lislaam jëmale ko ci yahuud yi ak ci nasraan yi di leen woo ci ñu topp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ayuha alyahuudu wa nasaara kunu li xayri mursalin ansaara tuubu ila al ilahi watlubu lhuda minhu taala bi itibaaci ahmada loolu da nga ci fekk lu baree bari sëriñ bu mag bi di ko wax beneen bokk na ci mooy yeesal gi nga xam ne seen may tudd na ko léegi te mooy lil mustapha nawaytu ma yu jaddidu sunnatahu aw wa inni ahmadu te bu ñu xoolee bu ñu demee ci téeréem euh, décrire na melal na jamono ji mu ñëwee mooy jamono joo xam ne li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon dafa daal di nëbb ndaka noonu jaar-jaaru nit ñu baax ñi dafa daal di ràpp waaye it ak réer dafa tasaaroo ndax nee na loolu mooy li ko sabab bi mu décrire contexte boobu muy jamono jooju ba pare dafa ne nag li koy saafara mooy dem leen wuti xam-xam te mooy hada wa innama alayhi almuqtafa li kasrati aljahli ala annaasi ixtafa daa di nag fa saariu lil ilmi ajmaina li wajhi dil jalali xaasidina beneen bi ci liy wane sëriñ bu mag bi sàmm gi mu sàmm nonal diine mooy taxawaay bi mu am ci alquran ndax nonal diine moom koo ko wax rek daanaka li ci jiitu mooy téere bi yàlla bi te mooy alquranul karim loolu bu ñu seetloo sëriñ bi wax na ci waaye jëf na ci ndax kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab la jamu fiddatin wala jamu dahab mooy nee na am mooy alquran mooy sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye waxal ne sax ne ndonam ndonam ci boppam moom sëriñ bi buñ ko bëggee sàmm ñu ngi koy sàmme ci téere bi yàlla bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawrusi nee na moom ndonaam du alal waaye ndonaam moom mooy lëggéeyal téereb bi subhaanahu wa taala beneen bi ci tegee it mooy moom sëriñ bu mag bi danañ fekk feneen muy wax ne ak toppam mi ko tabax ci alquranul karim banaytu taatiya bi itibaaci bi dikri wa sunnati wal ijmaaci allahu rabbi wa huda alislaami diini wa afdalu lwara imaami raditu bilislaami diinan la yazul wa bi muhammadin nabiyan wa rasul wa bi kitaabihi wa bil bayti dalil abuduhu jalla bihi ila rahil billahi amantu wa wajhi uslimu abdan lahu wa linabiyyi aqdim billahi amantu wa bil qurani wa bi rasulillahi bat ushani loolu lépp mu wax ci yonent bi wax ko ci alquran wax ko ci xibla gi wax ko ci sunna loola la muy tegtale rek mooy sàmm noonu loolu moom sëriñ bu mag bi ñor na ndax am na fu muy waxe ne moom mag ñi àndoon ak moom bu leen di wammat di leen jëmee ci suñu borom nee na ci alquran la koy jaare moo tax alquran jooju du ko wotteeg dara quranu ahmada la abri bihi badalan bihi aqulu ila rabbil waral ulama noonu yit ngay fekke muy waxe ci alquran ci anam gu baree bari ci mooy gim ci mooy maasikat bil kitaabi maska daririn tamassaktu bil hablil matini murattila massaktu bil kitaabi da iqaama kitaabun bihi massaktu mustaghniyan bihi loolu lépp dafay tegtale kon moom alquranul karim gëdd goo xamante ni si amoon na ko ci moom ba tax na bu ñu seetloo mu daan jël ay jëmm yoo xamante ne si yu mu wóolu la di leen samp ci ay barab ñuy jàngale alquranul karim naka noonu daan jël ay jëmm yoo xamante ne si da leen di sant ñuy naafila alquranul karim ñii ci ñaari rakk ñii ci ay téeméeri rakka ku mel ne ki sëñ daam abdourahman ku mel ne kii euh, sëriñ euh, Mamor Jaara ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne man mën nañ leen ci tudd waaye ñi nga xam ne ñoo daan bind alquranul karim buñ ko bindee ba pare dañ koy indi ci moom mu teral leen nga xam ne lu ñu ittewoo rek ak lu ñu aajowoo dana leen ko jox ba jox leen lu ëpp loolu waaye daan bokk ci lim daan taxawee moom sëriñ bi mooy di sos ay daaray alquran al karim di sos ay daaray alquran al karim waaye woote gi mu woote it ci ñuy jàng alquran ak di ko seetnantal qultu wa man yuridu rida arrahmani fal yusbitan tadabbur alqurani kon loolu dafay tegtale kon sëriñ bu mag bi ne sàmm na nonal diine ci wàllu alquran loolu ab tënk la rek beneen bi mooy sàmm na ko ci wàllu wattu gum wattu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba am na lu mu ci dajale ñu tudde ko nafaisu durar min kalaami afdalil bashar nga xam ne ay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam la ci dajale ndax wax na ne ginnaaw alquran wax yonent bi mooy wéttalam xadisu xayril xalqi li anisu baada kitaabi man huwa al anisu daal di wax ne moom yéene na te yéene mooy taqoog alquran al karim ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nawaytu wal amalu binniyaati talaazumi alxadisa kal ayaati loolu dafay tegtale kon sàn sàmm gu mu sàmm ndonali moom sëriñ bu mag bi ci wàllu boobu waaye beneen bi ci tege mooy sàmm gu mu sàmm li nga xamante ne si moom mooy ndonali ci wàllu fiq ndax sëriñ bu mag bi kenn ku nekk xam na ne njabootam mi ngi leen tënkoon ci ngiru Maalik fa aleykum bil malikiya moo tax téere yi mu taalif yépp ci wàllu fiq manees naa wax ne mi ngi dellu ci mazhabu imaamu Maalik waaye teewut boo demee ci borom nafaxaat nett li ne ne bi am na jamono yoo xam ne dafa yable woon ci réewu arab yi ñu wutal ko fa mbooleem mazahibul arbaa muy imam ahmad imam malik imam shafii abu xanifa ñoom ñëpp ñu wutal ko seen ay téere moom sëriñ bi ñu wutal ko ko mu daat koy denc ci barab loolu waxal na boppam ne mbooleem xam-xam yooyu ñoo ñu yoroon seen njiri yàlla donal na ko ko awrastani fiqaha imaami malikin alayhi ridwanu lkarimi lmaliki nafaatani li kunta bilmanafici wa qutta li fiqaha imaami shafii wajjahta li minka munan latifa qad qutta li fiqaha abi xanifa yaa qaidan xamidan xumida qad xutta li fiqaha imaami ahmada kon sàmm gi mu sàmm seen kii loolu dafa bokk ci sàmm noonu lislaam waaye bu ñu xoolee mbooleem li nga xam ne moom mooy wérdi yi kenn ku ne xam na ne ci wàllu tasawuf rek nga xam ne benn xaaj la ci ndonal diine moom sàmm na wirdul qaadir wirdul chazeli wirdu tijaan ci wirdu yooyu yëpp jëfandikoo na ko ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxal ko ko boppam waaye mbooleem awraat yooyu la ca doon ay secret la ca ëpp solo te mooy wirdu tijaan salaatul faatihi bi mooy Euh, beneen bi ci tege mooy bu fekkee wird la boo xam ne chadali mooy xasbunallah wird bi nga xam ne mooy xaadir inna waliyallah mbooleem wird yooyu la nga xam ne mooy secret bi indi na ko ci li nga xam ne mooy wirdul maxuus bi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxal boppam yemul ci loolu waaye mag ñi mu yaroon daf leen doon jox wird tijaan di leen jox wird xaadir di leen jox wird chazali boo xal boppam dafa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yahida loolu dafay dellu kon ci sàmm li nga xam ne moom mooy ndonal diine rawatina li nga xam ne moom mooy ndonal tasawuf bu ko defee fi ma ci tënke nag mooy bi ci des mooy ci sàmm ndonal diine bokk na ci lim ci liggéey mooy mboolem ñi ko fi jiitu woon lañu taalifoo ci ay téere ya nga xam ne moo aju ci wàllu pas-pas ya aju ci wàllu fiq ya aju ci wàllu tasawuf ya ca ëpp solo sëriñ bu mag bi ñëw na tënk ko ñëw na way ko ndax yenn yi dafa guddoon mu tënkal ko boppam ndax nit ñi dañ caa yokkatoon mooy la mu wax ne wajadtuhu xat sannafa al ahbaaru fiihi dafatira laha asraaru ka cheikhina al mujaddidi al xazali wabni ataillahi di lmaali wa cheikhina al kunti di l anwaari gawsi lwara qutbi rah al muxtaari wa cheikhina al xalifati al muayyadi bil xaqi min rabbi l wara muhammadi wa cheikhina al euh, mufassiri al qurani muhammadin al mansubi lid daymaani wa gayrihim min al mashaayixi al idaam jamaana allahu bihim yowma al qiyaama lakinnama kutubuhum li tuuli zahida fiha jullu hada al jiili kon nga xam ne loolu guddaay bi moo tax mu tënku yenn yi da ko doon da ko doon way ngir ñu man koo mën a mokkal ndax wesar daa jafe mokkal mm-hmm. waaw li kay yakuna toxfatan li kulli man arada xifzahu min abnai zaman loolu nag bu ñu xoolee mooy li mu waxal boppam ne tawaalifa saadaati ujaddidu naasixan li wajhi alladi ala midaadi wa mirqami ak la mu wax ne ujaddidu tawxida wal furuwa ma tasawufin xawa buruwa kon loolu taalif gi mu ko taalifaat yenn yi mu way ko yenn yi mu tënk ko yenn yi am ci yu fas woon mu indil ko ay misaal comme lu mel ni ki Mawaahibul Quddus leeral ko loolu day tegtale kon ne sëriñ bu mag bi taxawoon na taxawaay bu am solo ci sàmm li nga xamante ni si moom mooy noonal noonal diine te mooy noonal lislaam kon sëñ Jibril yaakaar naa tomb boobu tomb bu yaatu la waaye dama ciy tënk lu mel noonu rek. waa jërëjëf eh, sëñ jama dafa mel ni tomb bii sax moom moo nekkoon lubbul mawdoo waaye nag eh, xañ na ni ko bëgg a yaatale dëgg mën naa am du demee noonu. waaye ñi ngi lay sant bu baax a baax euh, leeral nga lu am solo ci ni sëñ bu mag bi moom euh, li ëpp ci lim sàmm mooy téereb suñu borom bi euh, bi mu ñëwee moom da cee taxaw taxawaay boo xam ne bu am solo la wax nga ni ci daawa beet sàmm na ci lépp lu fi yonte bi sallallahu alayhi wa bàyyi woon ci ay ahadis sàmm na tamit wàcc na ba ci ngir yi borom ngir yi wax ni ngir yëpp kenn ku nekk la nga yoroon suñu borom doon loo ma ngir yi ñëw na ba ci masaayix yi ak awliyaa yi borom awraad yi ñëpp kenn ku nekk ndax xam ngeen ni sëñ mag bi wax nga ni jëfandikoo na na mboolem werd yooyu wax ni sax am na ci ndigal la nga xam ni seeni i borom am na am na ko ci ba daan ko joxe ak daan ko jëfandikoo loolu lépp ba wëlbatiku nag yàlla jox ko yëfi boppam muy talxiis euh, benn werdul maaxuus nga xam ni moo tënk lépp loo xamante ni si ñëwoon na ca werd yooya waaye ànd ak loolu lépp nag tamit ñooñu ñëpp euh, da leen a joxoon wàccuwaay maanaam sëñ Tuubaa bokk na ci lim réussiré wooteem bi maanaam mooy du ñëwul rek daal di wane jëmmam wala kii waaye kenn ku nekk dalaa joxoon wàccuwaay jox la cër ba yàlla jox ko la ko jox mu soog a wax ni maanaam ja ja boo xoolee da ngay dégg naa machaayix yi Sayyidina al Jilaani wa Zazalima wa Tijaani gis nga ñooñu ni mu leen warmaa leen ni ñii samay sëriñ leen wëlbatiku dem ba ca ginnaaw ma ni yàlla doon loo ma lañ yoroon kon loolu lu am am solo la loolu lépp nag mu am yëfi boppam yoo xam ne dafa synthétiser lépp loo xamante ni si yàlla mas na koo jox nit ku baax wala mas na koo jox waliyu yàlla ju jox ko ko fataxta li kulla baabin kunta fatihahu li awliyaika yaa fattaahu yàlla allamtani alxayba xatta sirtu muntabihan anta al alimu allazi allamta yàlla kon loolu dafa am solo kon sëñ euh, euh, may léegi nag euh, lu lu tax ñu ndono loolu waruñu ko ma ñàkk bañ a sàmm mooy li ñu tuddee daruratul xifaas ala turasil muridi mooy sàmm ndono lii nag sëñ Tuubaa yor loolu nag moom lu mën da ñàkk la loolu tomb boobu nga ñuy ñëwal mu nekk loo xam ni lu mën da ñàkk la ci surtout nag suñ jamono ji mooy ci sàmm ndom ndonal sëñ Tuubaa loolu téye ak sukk dugal ko fa ñu wax roog seen téye ko ak suñu fukki suñu loxo juróom ba tasaare ko ba àdduna bépp mën koo jariñoo loolu xam naa nga ñëwal ñu ci tomb boobu bismillah jërëjëf sëñ Madiama jërëjëf sëñ Jibril Eh, sëñ Jibril jërëjëf ci gendiku yi ngay génne ci eh, bu nit ki daanelee yàlla na yàlla yokk xam-xam bi te barkeel ko dafa mel ni liñ doon wax yépp solo si foo ko takk weesu na ko waaye bii nag ndax li muy baax baax li muy am solo mën ñàkk gee def dañ naan wal iyaazu billah ndax ni nga ko waxee ndono ni ñu sëriñ bi bàyyeen suñ ko doon suñ ko maanaam fexe ba jëliñu ko téye ko leen sallallahu alayhi waxoon ca xadis ba ni fatamassakuha bin nawajisi na ngeen ko ni mag ñi daan def seenu taalibe xam ne dañ ko daan nga xamante ni ñu ko daan yóbbu seen ruug seen loolu ku ko ci deful maanaam def nga lu safaanoo ak la sëriñ bi bëggoon ndonal nag lii tax ñu mën koo sàmm faw delluwaat ci li sëñ Madiama doon dund doon junj ndax buñ ko deful day commencé di raaf day mel ni sëriñ bi moom lam doon yeesal diine jim doon yeesal day commencé di raaf ci biir wooteem bii te lu siècle yi gën di dem ajyaal yi gën di dem saa boo xoolee wooteeb Cheikhul Xaddim bi danga war a gis pëjji diine yi ci biir woote bi wërta am différence tey saabu yoonu murit gënee dem gënee bari doole soo ko xoolee li nga ci gis mooy shaairul islaam yi am benn différence ak lu jamono soppiku soppiku lu ñu àgg ci ah, euh, mondialisation saa xoolee biir yoon wi rek da nga cee war a gis pëjji diine yi ne ci biir pëjji diine yooyu nag li koy mën a mandargaal mooy ñu jël li ñu sëñ tubaa indil nga xamante ni du ñu jéggaane leneen li nga xam ne sëñ tubaa moo ñu ko indil ñu jàpp ci loolu ndax li tax ñu mën koo sàmm dañuy ñëwaat ci xam-xam ndax xam-xam moom mënuñu ko wax te duñ ko tudd sëñ jibril ndax sëñ tubaa li mu liggéey ci xam-xam mësuñoo xam nit ku liggéey ci xam-xam ci domaine domaine yi wuute ndax mbooloo yi bari nañ taalibe yi bind ci xam-xam bari na waaye dafa mel ni xànjalu guñ ñu sëriñ bi def li tax ñu mën koo sàmm bokk na ci ñu mën a fexe ba tasaare njàngaleem sëñ tubaa aalamiyatu daawatu cheikhul xadim ndax sëñ tubaa boo génnee sénégal gii weesu murtari am na dëkk yoo xamante ni kuñ leen sëñ tubaa wala cheikhul xadim ñun la kooku mooy kan loolu nag ñun responsabilité la ci ñun taalibe yi ñu yaatal njàngaleem sëñ tubaa nan lañ koy yaatale li nga xamante ni sëriñ bi moo ko bindeel boppam ñu jël ko am na mbooloo yoo xamante ni ñu ngi taxaw ci leeralaat mbindum sëriñ bi di ko saraa am ñoo xamante ni ñu ngi koy taxqiq waaye loolu li koy gën a firndeel mooy ñun ñu fexe ba dégg sëñ Tuubaa ndax sëñ Jibril bari na ci sama classe gi ñoo xamante ni dañuy wooteel sëriñ bi waaye li ñuy woote seen bopp la jëm wala laneen la ñuy woote waaye wooteelu sëñ Tuubaa te loolu dafay màbb ndonal sëñ Tuubaa yi ndax sëñ Tuubaa soo ko wootelee te gis gisuñ ci biir xam-xam ñu ci biir jaamu yàlla gis gisuñ ci biir xidma gisuñu biir mubaayaan sabab ngay wooteel wooteelu sëñ Tuubaa beneen bi ci topp ci ulum charia yi sëñ Tuubaa daf cee taalif ay fànn yu wuutee wuute te dafa mel ni damay faral di wax ni ñun benn jaanib rek la jël tey soo ñëwoon fii lu mel ni ci amaaki nii ma méngale ko ak li may wax nga jël lu mel ni maktabatu Cheikh al Xadim tey am na fi ay téere yoo xamante nii soo laajee ñi fi nekk danañ la wax ni la téere yooyu kenn mës ko fay ubbi te sëñ Tuubaa sonnoon ci wutlu ay téere bind ko taalif ko la taxoon sëñ ma jamanaan sëñ Tuubaa naan zahira fiha jullu hazal jiil ca jamono boobu moom de kon su ñëwaatoon ci jamono bi xaw ma lan lay wax ndax am na fi ay xeeti mbind yoo xamante ni kenn mës koo ubbi te dafa baax ñu ubbi ko leeral ko ndaw ñi dugal ko ci marakis yi jàngale ko dugal ko ci majlis almiya yi ngir ñu mën a jariñoo mbindum sëñ Tuubaa moom loolu mooy bi ci njëkk beneen bi ci topp bu dee ci biir xaside yi ngir ñu mën koo sàmm faaw ñu indi ci ay soppaxndiku soppaxndiku yi nag mooy suñu mbind mii dafa bawale ku dëkkul bawal doonoo am murid bu yaroo ci dëkk bi wala yaroo Sénégal suñ la joxee genn xasida pour nga liir ko jafe-jafe lay doon tey ñoom sëñ Jibril dawaayir yi fi nekk ansaaru diin muqaddamatul xidma rawdu rayaxiin sullamul wusul war nañoo fexe ba mbindum sëñ Tuubaa mi kenn ku ci nekk mu jël ci aw laaj bind ko mbind moo xamante ni yeneen réew yi arab yi dinañ ko mën a lire bañ a foofu mooy mbindum sëñ Tuubaa bi ñu fexe ba yóbbu ko ci maktabaat islaamiya yi loolu day tax ndonal sëñ Tuubaa yi mu mën a am continuité ndax su loolu amul ñun bis bu nekk ñun rek ñooy jariñoo liggéey bi te sëñ Tuubaa moom wooteem bii mooy ñépp la woo mafhum bi ma amoon ci muridiya mooy képp ku dib jullit kon loolu lii tax ñu mën a sàmm noonu lii ñi nga xamante ni ay mbooloo lañ ba xas nosu war nañoo liggéeyaat ci xasida yi ndax damay faral di wax ni am na ñu ñuy tuddee ahlu xasida ñenn ñi di jàng waaye ci biir boroom xam-xam yi warat naa am ganeen xasida ganeen ahlu xasida goo xamante ni ñoom ñooy bë jël mbind mi bindaat ko saraa ko ngir loolu dana tax ñu mën a sàmm ndono li beneen bi ci topp amaakin yi ma doon mën a ma doon wax te benn jiitu ci Tuubaa xamante ni sëriñ bi moo ko sosaloon boppam lii tax ñu mën a sàmm ndono li mooy dëkk bi ñu jox ko war ma jëm yayoo ñoo ngi ñaan Cheikh Ahmadul Muntaxa mu yàgg fi lool ndax ormay dëkk bi yeesalaat na ko te mës sa denc yi wax ni ormay dëkk bi nañ koy fonk ndax damay faral di wax ni man tuubaa dafa am ñaari jëmm yu fi nekk benn jëmm bi mooy sëñ Jibril mi fi yeewoo ak man mi nga xamante ni xaw naa sori tuuti te saa su ma xëyee sama nopp maa ngi koy dëgg ma lan la waa Touba wax kon ormay Touba ñépp la war masuliyatun lil jamia def cee rawe nag ki nekk ci biir dëkk bi waaye suñ gënee yaatal képp ku di murit responsabilité ormay dëkk bi ci sa loxo la nekk ndax dëkk bi dafa am benn particularité bu mu am mooy sëñ Touba dëkk yi yim masa sanc yëpp Tuubaa moo ko ci gënal suñ mënoon wax ni alquran la waxoon ni masjidun ussisa ala taqwa sëriñ bi dëkk bi daf koo sosoon ngir ak jaamu yàlla sosu ko woon ngir activité commerciale ko woon ngir koo xamante ni amoo foo dëkk nga ñëw waaye daf ko sosoon ngir rawale diineem rawale pas-pasam waaye ngir li mu bëggoon a jëmbat ci mag ñi mu sos bii a saaliha boo xamante ni dana ko fa mën a amee kon loolu bu ñu demee ay ati ati ay ati at ba mondialisation ñëw waruñoo jàpp ni Touba moog dëkk yépp ñoo yem ndax dëkk boo xamante ni dañ naan ki ko moom bu yàggul la génn jamono yaatoo na nangami kilomètre mooy deuxième ville à part bi dëkk boobu nag lu mu yaatu yaatu ci wàllu commercial ci jamono bu ci nekk nañ xam ni cosaan ni jaamu yàlla la woon te lu fi mat a ñaan sëriñ bi ñaanoon na ko fi waaye ñun bu ko fi sëriñ bi ñaanee te niñ ko war a téye téewuñ ko damay wax ni dëgg dëgg liggéey bi dafay des ginnaaw buñ ko war ma ji li ci jiitu mooy di jëmmal jaamu yàlla ci dëkk bi ndax damay wax ni sëriñ bi mag ñi ko toppoon toppewuñ ko lu dul da leen manoon ci ak jaamu yàlla gën leen a manoon ci boroomam ndax am na ci ñoo xamante ni bi ñuy ñëw ci moom lu ñu war a xam xam nañ ko waaye fi mu leen yéeme mooy seen digg ak seen borom subhanahu wa taala beneen bi ci ci liy war a sàmme ndono li mooy ñu xam ni ñun ñi nga xamante ni ñuy tuddoo ay murit taxawaay bi ñu war a am ci wooteef sëñ Tuubaa bi su fekkee ku yàlla man ngay boroom xam-xam war ngaa mën a fexe ba ngay jël ci téere sëñ Tuubaa yi di ko jàngale su fekkee yàlla man loowu loolu mu mën loolu boo boole ci ñi nga xamante ni yow mënoo tëral dangaa war di dem di tërallu loolu day tax wootab sëñ Tuubaa bi am continuité ndax boobaa day jóge ci ndax sëñ Mbàkke Abdourahmane dafay faral di wax lu lu lu lu yéeme mooy sëñ Tuubaa boo jàngee lim bind yaay jëli ci sëñ Tuubaa mu ñëw ci yow du am ku dox seen diggante waaye bu fekkee da nga am ab sëñ daara bu mel ni sëñ Jibril sa digg ak sëñ Tuubaa kenn fiy dox bokkut ak nag. keneen koo xamante ni daf lay nettali ay xuraafaat yoo xamante ni kenn du xam fan la ko jële kon loolu moom mooy lii tax ndonal sëñ Tuubaa yi ñu mën koo sàmm mooy ñu delluwaat ci xam beneen bi ci topp mooy li tax ñu mën koo sàmm mooy mag ñi sëñ Tuubaa yaraloon boppam kenn ku ci nekk am na loo taalif tawaalif yooyu nga xamante ni ñoom la ñuy tudde arraayul awal wax dëgg yàlla jamono bii de ñoo ngi sant bu baax sëti ndax gis nañ ñu jóg dëgmal mbind mag ñi ndax dañuy wax ni boo bëggee xam sa histoire da ngay jàng sa magi réew waaye bu ñu bëggee xam sëñ tubaa dañuy jàngat ñi àndoon ak tubaa démb kon bu ñu gisee ñi àndoon ak tubaa seeni sët di jël di leeral seeni mbind te biñ ci njëkk a gis muy liggéey bu am solo muy téere bi waa kër Cheikh Mamadou Fadal liggéey muy xadaaiqul fadail te bu yàggul ñu gisaat waa ahfaadu sëriñ moor Penda def ko bu mujj bi def ko muy waa kër sëriñ Mbàkke bu sodi saada tulaab loolu dafay tax ndono li ñu sëñ Tuubaa bàyyee ñu mën ko sàmm kon sëñ Jibril loolu tamit bokk na ci li tax ñu mën a sàmm ndono li mag ñi sëñ Tuubaa yaraloon boppam ñooñu ay jàmbaar lañ dañoo liggéey liggéey bu am solo ci ron sëñ Tuubaa waaye dafa mel ni ñun ndaw ñi ak ñiy topp ci yoon wi dese nañoo xencu mbindu mag ñooñu alhamdulilahi rabbil alamin nag ba nga xamante ni am nañu tàmbali di dellu si waat ci liggéeyu mag ñooñu kon loolu tamit dana tax ñu gën a mën a sàmm ndono li nga xamante ni sëñ Tuubaa moom moo ñu ko bàyyeel kon sëñ Jibril euh, jërëjëf euh, tënk bi am na solo lool ci ndax boo xoolee indi euh, na luy baree baree bari ci loo xam ni mooy mën a tax ñu sàmm ndono loolu ba ca njëkk mooy nee na li nga xam ni mooy cosaanul yoonu murit Euh, dañ ko war a sàmm ndax loo gis lu ne day am lu ñuy tuddee ay sawaabit am lu ñuy tuddee ay mutaxayiraat mooy yi nga xam ni moom jamono mën naa dox ba mu soppiku waaye am na yoo xam ne lu jamono yàgg-yàgg euh, fi lay des nee na loolu mënuñu ko ñàkk bañ a sàmm nee na tamit euh, nañ sàmm ci jéem a dégg sëñ bi mooy sàmm jéem a dégg sëñ Tuubaa te it jéem a buñ ko déggee ba pare jéem koo tasaare njàng na woo ñu tasaare ko am na ñu ciy def ay liggéey yu am solo nag ci jamono yii Euh, ñu mel ni euh, waa Fathul Ghafaar yaakaar naa bu Maroc ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yeesal mbind Sëñ Tuubaa yooyu eh, di ko taxawee ak ba ci lii ñuy def nii sax lépp ci la bokk ndax lii ñuy def nii jamono yi àdduna bi yëpp fu waay nekk mën nga ñoo seetaan mooy taxawal ay conférence ak sos ay këri sëñ bu mag bi mooy wax na ko ak euh, li ñuy tuddee yeesal discours yoonu murid nag wax na dëgg loolu tamit wax na lu am solo tomb boobu mooy tajjidul xitaab mooy bañ rek bàyyi ku fu waay tëbi rek di wax ci yoon wi ak ci turu yoon wi loolu dana tax bu kenn tasee ñooña te xamut sëñ bi dëgg-dëgg mën naa am dana jàpp ni sëñ bi kon ñi koy dund nii lañ koy dundee waaye sëñ bi mag moom li mu wax rek mooy boo jonjoog li mu bind moom yaakaar naa doo doo doo réer eh, ba ca des wax na tamit junju nañ tamit maanaam suñ façon bind yi nga xam ne moom la ñuy bind eh, mënuñoo ñàkk ñu changé ko wax na dëgg boo xoolee fële ci sama wet da ngay gis ay diiwaan yu bare yoo foo xam dañ koo tasniif diiwaan yi jëm ci asalawaat diiwaan yi jëm ci addu'a diiwaan yi jëm ci at tawasul diiwaan yi jëm ci am daax yëpp ba nga nee ñu bind bind ko ci mbind mi nga xam ne moo dëppook jamono pate tey fexe loolu tamit duñ ca yam waaye dañ koy yóbbu ci maktabaat islaamiya yi moo tasaare ko ci àdduna bi ba ñëpp xam sañ bu mag bi buñ ci paree tamit sàmm war may dëkk bi loolu lu am solo la buñ ci paree tamit kenn ku nekk jël sa responsabilité xam ni mbin lii la fi sëñ Tuubaa bàyyil yow am nga laaj ci ci war a bay boo xamante ni si wu am solo la euh, damay ñëw rek ci wenn bay di woo xam ne maa ngi ko dégg démb ci waxtaan wi euh, li Cheikh Moussa Ka doon wax naan loo xamul zahir sa doo ca bokk waaye loo xamul baatinam tamit doo ko fonk mhm. kon dañoo war a xam zahir si xam baatin bi loolu dafa nekk lu lu am am solo xam naa bala maa ñëw ci sëñ jama pour ñu tëj damay gis ni euh, war nañ cee yokk tamit di jéem a jàng li ñuy tuddee pensé sëñ bi mooy jéem a jàng sëñ bi ndax sëñ Muntaxa da koy wax dañoo war a jéem a dégg sëñ bi buñ ko déggee ba pare nag jéem a jëmmal xalaati sëñ bi pour mu nekk source de développement ci Sénégal waaye nag dafa mel ni ñun daal fiñ tollagun ak sëñ bi weesooguñ nekk ay murit ak bëgg gi rek waaye comme ni ko yeneen réew yi defee ci àdduna bi réew moo gis dafa taban nii benn saxsiya bu am solo mu taban nii ay afkaaram boo demee fu mel ni Siin Mao ak yeneen dëkk boo demee fu mel ni Iran Ayatollah Al Khomeini ak yeneen dëkk yu bëree bëri ci àdduna bi yoo xam ne seen développement seen source de dañ koo taban nii ci benn fikrab benn saxsiya boo xam ni bu am solo la moo xam ci jaanib siyaasa la bañ a jàppe sëñ Tuubaa rek ndax yaakaar naa jàppee mbindum sëñ Tuubaa rek eh, al jaanib ruux yi rek lépp nga tënk ko ci jaanib ruux yi yaakaar naa loolu mën naa dem ba nuru ak tooñ sëñ bi kon dañoo war a xam ne sëñ Tuubaa maanaam moom li mu fi indi eh, mashruu xayaatin la li saadati daarayni mooy projet de société la boo xamante ne si man nga cee am àdduna man nga cee am man nga cee am alaxira kon xam naa sëñ ma jama eh, damay kon xam naa sëñ bi dama lay jox su ko defee bala maa ñëw ci programme suba bi ak eh, jox kàddu ñi nga xam ne ñoo fi teewal Sulamul Usul dama lay jox rek nga tënk mm, ci sa kàddu yu mujj comme yi nga doon junj ci irshadaat ak tawjihaat yi xam naa yooyu sax tudd nga ko mhm. waaye nga tënk rek joxe sa kàddu gu mujj ñuy soog a ñëw ci kii bi ndax waxtu yi daa mel ni na. jërëjëf sëñ Jibril e, yow daa mel ni bi nga xamante ni moom lañ doon jox ci irshadaat yi ak tawjihaat yi mooy bi nga mujj tudd mooy ñu jéem a jëmmal alfikrul xadim yi ndax loolu buñ ko deful woote bi dafay mel ni dafay am fu mu taxaw. fi muy taxaw mooy sëñ dafa am benn pensée islamique bu mu indi bu ñu baaxul woon a gis mu indi ko jëmmal ko ci bind yar ci ay nit ba pare tabax ko ci ay dëkk mais ñu dem ay tuuti mondialisation bi dugg mu mel ni loolu sëriñ bi defoon ci mag ñi dafa mel ni du wax ni mi ngi deñ mais mi ngi wàññiku ndànk-ndànk mi ngi bëgg a raaf te loolu li koy indi mooy ni ko sëñ Muntaxa doon waxee mooy ñun dañoo déggul sëñ Tubaa te loolu ngir ñu dégg sëñ Tubaa lan rek mooy man li ma ci joxe su fekkee lu ma sëñ joxe la mooy ñu delluwaat ci mbindum sëñ Tubaa ndax nit booy bëgg indi benn continuité ci ci ci pensée faaw nga dem dellu ci lim bind ndax su fekkee mën naa ci joxe benn exemple bu gàtt tëje foofu muy suñu jëloon xaside yi Sëñ Tuubaa suñu ñu teg fee wàllu baatit gi ndax xëy na loolu mën naa ko mën a bàyyi ñoom sëñ Mor Ndom ak ñoom sëñ Serif ak ñooñu waaye ñu jël côté nite gi mu doon bindee xeetu xam-xam yi mu doon génne damay wax ni man bis bu yàlla sàkk ma gis si téere bu bees xasida gu bees wala bëy bu bees boo xamante ni sëñ Jibril mën na koo jël def ci ab baxsam ñu ni ki def lii fan la dëkk loolu te bis bu nekk mu ne ci biir xasida yi te kenn du ko mën a jëfandikoo kon loolu baax na lool ñu delloowaat pensé sëñ Tuubaa waaye gën koo jëmale ci am mbindam beneen bi ci topp tamit mooy ñu fexe ba suñu identité ñu mañ koo soppi ndax nit ki li tax nga mën a wéyal sa identité nga bañ a def ab rax mooy bu tayee nga doon am murit sol colu murit bu subaa nga mel waneen melokaan ndax sëñ Tuubaa boo demee ci wasiyatu min wasaaya am na fa ci kenn ci mag ñi ku mu doon dénk di ko tere ak tubaab tubaab lu ndax loolu li tax mu ko ci doon bañ mooy nit koo roy wal mu wal la jikkoom te sëñ Tuubaa dafa bañoon ak tubaab tubaab lu kon li tax ñu mën a dégg sëriñ bi mën a téye woote bi mën a téye ndono li mooy suñu identité yi sëñ Tuubaa defoon ci ñun def ko ci mag ñi ñu ndaw ñu ñu téye ko kon euh, sëñ Jibril jërëjëf euh. foofu la ñuy daaneel a kàddu gi di sant bu baax a baax mm-hmm. euh, di sant nag waa maktabatu Cheikh Xadim gi yëpp mm-hmm. ci njiital sëñ Basiiru ak sëñ Xuseynu di ñaan rek lépp lu ñu fa wax yàlla nañ ci dajeek ngërëmal yàlla te làq ci ngërëmal sëñ Tuubaa su ko defee ñoo ngi lay delloo kàddu gi jërëjëf sëñ May xam naa yow la ñuy beral ak cant ci disponibilité gi wax dëgg yàlla ndax fa ngay jóge sori na xam naa ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kàddu yi am na solo ci surtout nag li nga ko tëjee kon xam naa oustaz yooyu dama lay jox nga indi ci eh, ay rek su ko defee mu nga tënkaale nga tënkaale sax damay damay tëj rek waa julli jot na waaw euh, di sant bu baax a baax mbokk yi ci daaray kaamin yàlla suñu borom liggéey bi mu gën a jëm kanam bu baax a baax euh, xam naa ne rek ñi ngi wax wàllu minniin wi comme ni ko sëñ may waxee loo xam ne dañoo bëgg mu génn ci biti moom dafay aajowoo ju bind ko ci mbindin wi nga xam ne mooy tax àdduna bi yëpp man cee jot waaye mbindin wi ñu am fii dañ koy sàmm ndax mbindin wi bu réeree daanaka mënees naa wax ne ndona lu réer lay doon ndax daanaka boo xoolee ci yoonu murit am nañ seen xeetu mbindinu bopp ci biir yoonu murit sax daanaka euh, da nga ne mbindum sëñ diw sàngam mbindum sañ diw sàngam mbindum sëñ diw sàngam yooyu nag jàpp naa ne lu jara sàmm la bu baax a baax beneen bi ci tegee it mooy lu aju ci wàllum njàngum majlis bi majlis maanaam gis naa ne njàngum majj de si cosaan la ci ndoona li la bokk te gis naa ne day mel ne ki am na lu koy menacé xale yu baree bari léegi seeni waajur yóbbootuñ leen ci majj di si ñuy dem di jàngi day mel ne ki am na xeetu njàngin wu gën a léegi woo xamante ni si ñu baree bari seeni doom ca lañ leen di dugal nga xam ne lu ci ëpp xale bi bu mokkalee alquran rek au lieu que ñu mu dem jàngi majj si dañu naan nañ ko yóbbu école tubaab mu dem jàngi loolu nag jàpp naa ne bokk na ci li nga xam ne mën naa menacé li nga xam ne mooy ndoona fi ma ci jeexale mooy maanaam sëriñ bu mag bi bu ñu xoolee ak mag ñi mu àndaloon bu ñu daan tudd ay dëkk am na lu ñu koy tuddee daaru salaam daarul quddus daarul mannaan daarul minan daarul mu'ti xusnul maab nga xam ne dafay delluwaat ci diine wala mu delluwaat ci dëkk boo xam ne dëkk bu cosaanu la ci wàllu diine léeg-léeg nag nga dégg ñu naan la kër gol kër nangam kër nangam léeg-léeg jàpp naa ne ci dëkk bi xeetu xeetu tur yooyu ñu delloosi ko ci cosaan gën koo sàmm ndax euh, bu njëkk daa rek boo demee ci ci yenn dëkk yi dañ naan kenn ku nekk sa dëkk da koy askaneel sa bopp sañc nangam wala kër kër diw sàngam léegi nag di ko delloowaat ci ni sëriñ bi daan tuddee ay dëkk ak i magam jàpp naa ne loolu it bokk na ci li nga xam ne mooy sàmm ndonali kon sëñ Jibril jàpp naa ne euh, ñu ngi sant bu baax a baax di yamali foofu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf sëñ ma ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant ndax yow saay bu la barab bi soxlaa da ngay ñëw kon xam naa dañuy ñëw ci sant di gërëm daa euh, daaira bi nga xam ne mooy sulamul wusul euh, moom it bokk ci di académie bu am solo fële ca Guédé Bousso euh, di yëngu ci wàllu xam-xam xam naa ki war a joxe ñu ñëw rek ci joxe seen kàddu sëñ Modou Bousso moo war a joxe seen kàddu incha allahu taala xam naa ñi ngi leen fàttali tamit programme yi mi ngi wéy day wéy di ci màggal gi ndax euh, yaakaar naa suba war nañoo am benn thème buy wax les avantages et les inconvénients de nouvelles technologies mooy euh, kii al ijaabiyaat wala salbiyaat mooy li am yi am ay baax baax ak bon bon yi nga xam ni mooy dëkk moo am ci li ñuy tuddee nouvelle technologie bi buñ bu dee suba euh, ginnaaw suba ci si safar dinañ ñëwaat ba tey li ñuy tuddee makaanatu at takwin al mihani fi taalimi al cheikh al xadim radiallahu anhu mooy Euh, wàccuwaay bi nga xamante ni si li ñuy tuddee formation professionnelle am na ko ci njàngaleem sëñ bu mag bi waaw ci njàngaleem ci njàngaleem sëñ bu mag bi loolu lu am solo ñu war ci ànd ak docteur Khadim Silla mu war ñoo taxawel waxtaan woow na ko ñëpp bàyyi xel ànd feggoo ci ku ñu wax sëñ Bachir Diatra kon euh, sëñ Modou ñu ngi lay dalal fii ci maktabat Cheikh Khadim e, di la wax bisimilah tafaddal bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man bi ihsaanin ila yawmi ddin noo ngi nuyu mbokk yépp te di leen ziyaar bu baax a baax di rafetlu sunu teewaay fii ci maktabatu Cheikh al Xadim di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk barab bi di leen gërëm ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne moom lañuy taxaw ci yoon wi ci xam-xam di sant ak gërëm itam kilifa yi nga xam ne ñoom lañu àndal bàyyi ko fee ca Gédé ci daayira bi ñuy wax Sullamil Wusul ànd ci ak euh, sëriñ Sërif Bousso ak sëñ Abo ak sëñ Baara ak sëriñ Modou Mbacké Fabal ak délégation bu am solo daal ñi nga xam ne euh, ñi ngi leen di teg bët euh, xam naa euh, kàddu yi moom du weesu kàddu yi sant ak gërëm ndax sulamul wusul daayira la boo xam ne fu mu dégg jataayub xam-xam ci dëkk bi wala fu dul dëkk bi sax war na jaa teew waxuma nag ak loo xam ne nag dañ leen ko cërale kon mënul def lu dul sant mbokk yi nga xam ne ñu am initiative bi euh, tuddee leen ko dara jaale leen bis bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm fi ñaan sunu borom dëgëral leen di leen xamal ne itam daayira bi ubbi na ay buntam ci mbooleem wet yi nga xam ne ñoom lañuy dox jëm muy xam-xam ñu ci mën a jëflante ndax bu ñu xoolee mbokk yi li ñu doon waxtaane léegi mooy ak turaas dafa doon loo xam ne euh, ak sax niñ ko tëralee waxtaan wi tëralin wu ama am solo la ci wàllu xam-xam ndax euh, dañuy wax ne amal ilmi moo xam ay wax la moo xam mbind la boo koy def dafa baax nga def lu ñu tuddee tahdiidu al mustalahaat te boo xoolee mbokk yi niñ muaalaja mawduu bi maanaam xam-xee na xam-xamee na lool ci ci tëggiinu xam-xam jamono ndax bu fekkoon ne tàmbalewuñ ci tahdiidu al mustalahaat dafay xaw a nuru li ñu tuddee fawda fikri yi ndax lu doon fawda fikri mooy loo xam ne xam maalumaat yi mi ngi fi waaye nosuwut kon nag boo xoolee ni tëggee mawduu bi ci tàmbale ko ci taxdiidul mustalahaat turaas mooy lan ba niñ ko jeexalee wax dëgg yàlla xam-xame na loolu te méngoo na ak barab bi turaas boobu ñu doon wax nag daanaka li ñu tuddee al masdaru al asaasi lil madi daanaka mm, daa doon loo xam ne ab société pour mu dund dund ko normal faw bànqaas yi ko wala reen yi nga xam ne ci la sosoo mu ci delluwaat bu baax a baax surtout ca yam baax le kon defe naa euh, li ko mbokk mii toogoon fii doon waxee léegi euh, dayre bi nga xam ne mooy Sullamul Usul yàlla def na mu ngi jéem di euh, internationaliser mbindum sëriñ bi ndax euh, fi ñuy roote ñoo muy Sëriñ Mbàkke Bousso inter internationalisé na Sëriñ Touba ca jamonoy Sëriñ Touba mooy téere boobu ngeen di gis muy isdaar bu bees muy masale euh, ko saxaadatu tullaab boobu noonu ci jamonoy Sëriñ Touba la ko Sëriñ Mbàkke sa bind wan ko Sëriñ Touba Sëriñ Touba dëggal la ca nekk lépp. ñu jël mbind moomu yóbbu ko ci réewi arab yi ñu boole ko ay ay téere yi Sëriñ Tuubaa bindoon taalif ko kon ba mu internationalisé mbindum Sëriñ tubaa wala jëmmi Sëriñ tubaa yi histoire yàgg na kon nag ci loolu rek ci la daayira bi di dox kon bu ñu leen invité ci barab yu mel nii mënuñ lu def am ci mbégte lool te it bu ñu amoon délégation bu ëpp ñëpp mën a ñëw sax dañuy ñëw waaye xat-xati jamono ak ni jamono ji bindoo moo tax kon daal xëy na ñi ma àndal ñoo ëpp fasaaxa ëpp xam-xam gën a mën a wax lu leer waaye rek daa fekk ne lii am natt la ci man ñu ne moon naa jottali kàddu yi rek kàddu yu sant kàddu yu ngërëm jëmale ko ci waa maktab maktab maktaba bi di la ñaanal suñu borom dëgëral leen gën leen a sàmm ba euh, liggéey bu am solo bi ñuy def ci koor gee ak ci safar yi yàlla gën leen a dëgëral ñu gën koo mën ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu lay sant bu baax di la gërëm. Euh, di sant waa daayira bi tamit euh, ci seen taxawaay ndax liggéey bii dafa nekk liggéey boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko seq moo tax euh, bu amee rek ñu leen ci di woo kon mbokk yi xam naa foofu la ñuy tëjee suñu kàddu di sant mboolem képp koo xam ne yaa ngi ñu doon teewlu ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala kàddu yi ñu fi yëkkati yàlla boole ko ci kàddu yi mu gërëm te dajalañ ci ngërëm la sëñ bi tem am njariñ ci képp ku ko doon dégg. in huwa li zalika ma in huwa bi aziz kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu